bon maa ngi tudd Kemé Saint Sandé euh, maa ngi jógee Dakar ñoo fii di jàpp ci liggéey bi euh, dama ñëw pour daggal leen euh, seen tenue bi waaw def nañu premier tour bi deuxième tour presque ñu ngi dernier virage bi ci coupe bi voilà loolu moo ñu fi andi. waa li projet état bi la li ko andi mooy mooy corona bi moo ko indi woon moo provoqué affaire bi.

peut-être euh, l'année prochaine aussi mun na am ñu améliorer affaire bi euh, pantalon am ci wala jupe yi demee noonu mais cette année moom blouse rek la waaye. alhamdulilah mu ngi déroulé normalement parce que li gënoon a jafe mooy euh, nga indi ñoo xam ne aussi peut-être bokkuñu fi ñuy yaroo wala bokkuñu fi ñu fi ñuy liggéey ñoom boo leen dajaloo fii ñu ñëw fii di yendu fii de matin au soir loolu. bon sant yalla la parce que gisuma lo xamni aussi euh, dina problème sen diganté dal wa liggéey dal mi ngi tegu ci yoon bi ndank ndank way wa euh, notre bu rafet la aussi mais seulement aussi problème bi moy délai bi mo xaw a par rapport ligue bi parce que boo euh notre liggéey bu baax té délai bi gàtt amna yo xamni aussi peut-être am ñu expérience ci ligue bi kon ñoom boo leen joxee yenn délai aussi dafay xaw a poser problème tuuti pour que ñu jënd le résultat positif waaw mais bu délai bi demoon na peut-être un mois là c'est peut-être euh, dina gën a baax moom incha allah. Hmm. waaw booloo rek nekk benn gëm métier bi parce que xam naa ni métier bi moom benn métier gënu ko muy tailleur muy maçon muy leneen quelque soit métier boo boo mën a yëngu daal il fallait nga am yére booy sol te ñoom tailleur yi ñoom ñoo koy ñëw. kon liggéey la boo xam ne moom liggéey bu liggéey bu noble la jeunesse yi bu ko fank bu baax gëm seen bopp gëm seen gëm seen réew seen état bi accompagner leen je pense que li ñu doon uti Europe mun nañ ko am fi aussi waaw di leen sant sama copain bi aussi maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom may ko gudd fan ak wér ak ñu bokkaloon liggéey bi aussi incha allahu rabbi jërëjëf